jërëjëf mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi loo ngi ku ñu nekk turam te di ko ku santam di ñaanit kuy dégg sunu kàddu nga wax ci saw làmmiñ ne Cheikh Mouhamadoul Mountakha yàlla fi yàgg lool te sëriñ Cheikh Jëmb Falit yàlla na ko sunu te wéral ko ak mbooleem kilifa diine goo xamante ne yaa ngi ci réew mi te sunu borom dogal sa dàll te lislaam tax noonu nuyu bu baax imam bi nga xamante ne moo nekk gox bi ak chef de quartier bi beneen notable bu nekk ci koñ bi moom lay bu baax te di la siyaar yi mbaa nga topp takk ndombal tànk te nekk ci gox bi moom lay nuyu baax di la siyaare bu baax a baax di ñaan tamit yéen bi la yàlla yéen yàlla woyof lool ci barkeb Cheikh Ibrahima Fall ngi siyaare bu baax mbooleem ku nekk ci barab bi rek noo lay siyaare bu baax te di la nuyu bu baax a baax tey nag xam ngeen ne waa ginnaaw raay yi ñoo xewle mooy sargal ginnaaw raay tey lii du lu rëy ci ginnaaw raay waaye lii du lu solo ci ginnaaw raay waaye lii du lu màgg ci ginnaaw raay kan moo def nii maam Cheikh Ndaw Zikrullah ki nga xamante ne guddeem ak ci bëccëgam subaam ak ci ngoonoom lépp jox na ko Cheikh Ibrahima Fall maam Cheikh Ndaw tey nag bis bi rëy lool ci ginnaaw raay waaye bis bi am solo lool ci ginnaaw raay waaye bis bi waa ginnaaw raay fonk ko lool di ko waaj lool tey fii ah dina doy waar trop waaye balaa loolu ñoo ngi siyaare bu baax Baye Galas Mbacke bi ngeen si léegi ci jotaay gi moom sëriñ Seexu mi Mbacke moom Serigne Falilou noo koy siyaare bu baax te di ko wàccee ci wàccuwaayam li nga xamante ne moom la ko sunu borom defal te di ko ñaanal yàlla baax sunu borom guddalaw faram te ko Baye Galas dikk gi nga dikk fii mel na ni Alaaji Sëriñ Seexu mi Mbàkke rek a dikk ci barab bii waaye gi nga teew fii mel na ni Alaaji Sëriñ Seexu mi Mbàkke rek a teew ci bii bis bi fonk nga ko lool am na foo ko teg lool ngir kii di ko def muy maam Cheikh waaye nag taxawaay yu am solo yi nga taxaw ñoo ngi la ci ñaanal yàlla bu baax sunu borom yàggal la fi te wéral la ba li nga yéene lépp bëgg ko sunu borom defal la ko ci barkeb Cheikh Ibrahima Fall ànd nga ak sa jëwriñ muy jëwriñu mbooloo mi muy Serigne As Diouf mi toog wetu sëriñ bi mooy jëwriñu fédération dayratu salaam mu ngi nii egsi na léegi noo ngi koy nuyu baax te di ko siyaare waaye xam ngeen ne rek bis bii tey bu célébrer Pape Diambé cër bu rëy bi mu fi am ak cër bu rëy bi ñu ko ci jox moom it mu fonk lool bis bi monsieur le maire Pape Diambé jox yitte lool bis bi waaye nag madame la maire ànd na ak délégation ñu ngi nii egsi nag léegi toog ñoo ngi leen di nuyu baax di leen dalal di bëgg ci yéen bu baax ndax taxawaay bu rëy bii ak délégation bu fort bii yéen wane ngeen ne monsieur le maire fonk na bis bi ñoo ngi leen di nuyu baax léegi nag xam naa bala ñoo sori ndax dañoo bëgg tey maam Cheikh teel a génn bëggal ay soppeem waaye bëggal ay dëkkandoom waaye bëggal mbooleem kuy bëgge maam Cheikh ay loolu lañ bëgg moo tax dañoo bëgg duñu sori su ko defee laayeen yi fu nekk waa ahlu bés bayti rasul fu ne nañ génn ñëw ñoom it jël seen heure su ko defee yaakaar naa ne Mame Cheikh dina def première partie waaye dina def deuxième partie waaye dina def troisième partie waaye dina def quatrième partie waaye dina def cinquième partie tey nag lu rëy dina xew fii ci ginnaaw raay gi nañ ko bàyyi xel bu baax ndax maam Cheikh ah maam Cheikh nag sëñ Omar wax na ma ne indil naa samay soppee ay surprise yoo xamante ne ah surprise yu doy waar la tey nag ku bëgg a déglu neex moom tey ñu ko dégg bu soobee yàlla nañ def nii ñu màggal Cheikh Ibrahima Fall. borom mu ne def leen lii seen loxo yi ca kaw ñu màggal Cheikh Ibrahima Fall Ibrahima Fall waaw waaw jërëjëf jege na laayeen bi waa tax mu bëgg rasul ndeysaan Sidi digal nay taalibe tabax jumaa Yoff boor a dem ndeke ngeer mi mooy bëgg a dem wuy ji laaw rabbana arab ya tàmpil ko mu ñëw alaaji bàll sunu seen ñëw أنكر أولئك الدياو ما كان جهلي كبيرا سيدي صادق مومك جوخ جوخ مومن من ونا لك جوخ موني من seyde rola ya lasan jalleno rola ya lasan jalleno rola ya makakwa medina tampel nanu seyde rola ya lasan jalleno

seydi seydi roalaay jalleno laay jallal jallaleno ngag bay seydi roalaay am ngag may dee baayu Abdoulaay jàlle no Abdoulaay jàlle jàllale no ngelu may sey dee baayu Abdoulaay jàlle no Abdoulaay jàllal jàllale no am nga du may sey dee baayu Abdoulaay jàlle no Abdoulaay jàllal jàllale no Seyde ayu Abdoulaye Jalleeno ayu Maka gëm nanu la tampel nanu Seyde ayu Alassane Jalleeno ayu Maka gëm nanu la Ñas la ilaha illallah Maam Baay Laay Doomaas yaa gën fii ak fu ñu jëm la ilaha Baay Doomaas la ilaha illallah Bismillah laay nanu way Maam Jomo di yoneen ba soxna ngaan ñi la ñu wax ku sopp Baye Ablaye xalif général ci sa loxo ca kaw am na fa cër sëriñ Abdoulaye Thiaw Thiaw sëriñ Abdoulaye la nga yoo Baye Abdoulaye ku lay xam du ne ñaan sa fan wi di wéy di wéy di wéy ndax yaa fi këru Seydi Baari Laay Baay Abdoulaay Thiaw demu am tur aas ay darajaat jiitu na aas Seydi Abdoulaay Thiaw damay xalam sa mbir di xool daaboo ci sëriñ ba ko jàngal baayu bu seene ci sëriñ ba ko jàngal ay seex Mbàkke ci sëriñ ba ko jàngal Super, super, super. Cheikh Ibra Fall mooy tijji mooy tëj de maam Cheikh mooy waaj dugg si noonu maam Cheikh Sikkurulaa mooy waaj dugg si noonu maam Cheikh mooy waaj a ay soppeem maam Cheikh mooy waaj ñëw balla loo wax ci maam Cheikh. auzu bi kalimatillahi taammaati min sharri maa xalaqa auzu billah bismillah inda waliyallah barke borom Touba jërëjëf yi borom Touba maa ngi naan képp ku fi teew rek nga ne jërëjëf yow. sunu mag nga sunu xarit nga ñu bokk lépp waaye tey vraiment am naa mbégte mu rëy nag jàkkaarloo ak yow ndax yow man ak yow ca Masaalikul Jinaan ñu bokk ko ak sëñ Mourtala yàlla na buur bi yàlla sërali cëram sëñ Mbëggay Jóob ak ñooñu ñu baax ñooñu ñëpp nga xamante ni liggéey Sëriñ Tuubaa rek moo leen ñoroon waaye bada balaa muy nuyu kenn ci jotaay bii dinaa nuyu Baye Jalas Mbacke moom si Cheikh mi Mbacke. moom Serigne Fall moom Serigne Fall Fall bu sa jënd bi ba siiru Fatoumata Mamoun mi ci kàddu gi. yow sa maam moo taal lamp yi miir almeer yi ba mu wax ñeenti goudron yóbbu juróom-ñetti téeméeri nit doy ci laal ku ne jàpp mu ne bàyyi mu dem kooku moomu du faa daw. nee na mënuma wu ne ma dagal mbootu waaye mën naa turando wu ne bu saa taxawee ma boole guy juróom tàbbal àjjana bàyyi sëñ Abdou Karim Mbacke borom Mbàkke ñu ngi lay ñaanal jàmm ju mat Serigne Fall. yàlla na fi yàgg ci yow. xamante ne si kii moom su ne maa ngi leen di ñaanal Mbàkke ngeen yàgg fi ñu ngi ñaanal muy borom daaru sañ-sañ muy maam Cheikh Mbàkke nga xamante ni moom it yitteem du ko du jub di nekk si ñun saa su rek. di siyaar honorable député Mame Diarra Fam ñu lay siyaar bu baax waaw ñu siyaar tamit madame wax ko nit ku baax nga boo ko deful moom mii du ko wax waaye ku xam sa baay xam ni mii rek ngay mën a mel mbokk yi dégg ngeen ko léegi xale bi ñaari yi bu ko li mu way fii lay way waaye nag maam Cheikh Anta Mbacke day dóor si bu Serigne Sidi Mbacke alxuraan maam Cheikh Anta Mbacke ku ne xam na ne keroog bu ko Serigne Touba ganesee rey na luy dox lay na luy naaw keroog dafa tër sax jaam Serigne Touba goreel ko nga xamante ni kon day sàmm. surtout que surtout Rasulullah ay soxnaa leen ko léegi une grande dame dans ce pays di ku yàlla baaxal di def lu baax di wax lu baax bëgg lu ginnaaw di jàppale nag jigéen ñi projet des femmes madame le maire financement des femmes madame le maire mu ànd ak jigéen nag yi. gëmloo leen liggéey di def lu baax di wax lu baax deful dara li ñaaw fii ci biir ginnaaw raay déedéet te doo ko seen mukk ci loo koy xeebe saa boo ko gisee rek lu jëmale ginnaaw raay kanam rek ci la nekk te lu ko musalameer yoon ni du ko wàññi mukk de da koy yokk ba dollu ci noonu la mel mi ngi nii toog col colal ba ca kaw rek madame la maire ndeysaan c'est vrai que c'est difficile de vivre avec la femme mais impossible de vivre sans la femme lu fi jag lu nekk ci génneeru yaram. man dégguma la de. dama ne. ah dégguma. dama laa bëgg a dégg. dama ne que c'est difficile de vivre avec la femme mais impossible de vivre sans la femme. bu jigéen amul woon dara bu baax. dëgg la kër bu fi teg sax jigéen la ko jagal. moo tax góor bu fi yàq góor bu fi amul sax na ànd koom la. yàlla yàlla defal leen jàmm ci barke nit ci bi. madame le maire Fandiaye. nana ce. na nangoloog takk yi. kii qui est en état de grossesse bien avancé. dégg nga sëñ Bada ne mii nii. waaw waaw jëlal Fane Niamé Dieng nit ku yàlla baaxal maternité mënu ko indil. car lamp yi léegi bu guddi jotee ku fi sa weccit leer mën nga koo gis amu fi woon Papa moo ko fi indi. ñu jàppale ko bu baax te xam ne ku baax la ci ci ginnaaw raay. onze billah bisimilah dinaa wala yàlla asalaamaaleykum wa rahmatullah dafa di kàddu yi mënul ñàkk. dëgg la ndax yàlla su dogalee nga am xew-xew am bis sol sa dàll ànd ak say kilifa dem seeti kilifa mu wax la la mu la wax mu ñëw def ko dafay yelloo rek ñu ne ko jërëjëf kon madame la maire neel monsieur le maire ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax keroog bi yàlla dogalee ñu ñëw biroom fekk ko fa nitu kese la un homme un homme te humble lañ fa fekk mu waxtaan ak ñun kaf ñun defal ñu ay promesse te loolu mu ñu def na ko kon wax ko ne ko xale yi sant nañ wax ko ne ko xale yi dégg nañ moom moo xam li mu bëgg ci xolam yàlla na ko ko suñ borom defal te su boobaa yàlla na doon li koy jig kon madame la maire ñu ngi lay yóbbante loolu ci monsieur le maire pare aussi ak kenn ci ñun muy soxna su baax muy soxna maam jaara ndax euh, ñun dañuy wax su ndongo yi rakkaajoo maam jaara aye waaw kon moom tamit mention spéciale waaw mention spéciale damaa bëgg ngeen tàccul ma soxna yi la maire ak madame Maam Diarra Mbow ku ko xamul dégg nga ko mu nekk une députée exemplaire Maam Diarra Fall noonu la rek kon li may wax nag on peut pas dire ginnaaw naay sargal parler de Ibou Faye Biram buggul ku koy tudd Jibi Faye Jibi Faye Ibou Faye c'est pareil pour nous parce que c'est quelqu'un boo nga xam ni il a respecté tous les engagements yoo nga xam ni defoon na ko wala waxoon na ko ak ñun grand un grand merci pour toi yaa xam loo bëgg ñoo ngi koy seede suñu kilifa yi toog ndaxte jëmm ji toog mooy alaaji Serigne Cheikh bu muy Mbàkke ibnu Cheikh Mouhamadou Fadal ndax moom mooy taawu Cheikh Mouhamadou Serigne mu dippee ko waajuram muy Cheikh Mouhamadou Fadal kon balay sa buri Serigne Mbàkke ak Maaram Mbàkke bala ñu ngi leen di seedeel jëf yu rafet yii suñu jigéen ñi ak suñu càmmiñ ñii def suñu góor ñii ak nag kenn koo nga xam ni boobu ba tey tuddaguñ ko muy ku ñu dippee bis bi. muy soxna muy soxna. waaw kottu jàmbaari soxna. waaw soxna kottu kañ. waaw kottu kañ nekk tamit ci gox bi. nekk jàmbaar ci gox bi. te toxam ak yitteem lépp lépp lépp nekk soxna maam jaara. dëgg la di kon du ñu téye nit ñi ndax temps amul te waxtu wi mi ngi dox kon dañuy woowaat rek bada maam Cheikh Ndaw balaa suñu kilifa yu tekk yi ndax nag amuñu jot di jóg di déplacé wu mu defalaat leen lu nii. léegi balaa balaa moo woowaat. yow rek mënoon ngaa yor bis bi de. ndeysaan dëgg la dégg léegi Balla. waaw dañ lay bàyyi rek. Mhm. nga dugg ci présentation bi. Mhm. su ko defee ñu woowaat maam Cheikh mu dikkaat. waaye kon euh, sëñ Bada waaw Balla. ba tey dañ ne soxna. maa maa ngi lay bu baax di ziar ñi fi nekk ñëpp di ziar kilifa yi ñu fi fekk ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu fi fekk fekk nañ fi l'adjointe au maire madame Fatou Ndiaye Bathily kooku sama sëriñ la léegi bu ñu wooyee baayam Cheikh Oumy Mbacké mu soxna Adji Ndoumbé Diop ca Nice dama jóg taxaw fii tàll ndax maa joxel baayam addi joxel ko sama doom jëkk Nice di Adji Ndoumbé Diop seen Cheikh Oumy di sama xarit di ku baax mérito tànt bi ma taxaw ci waaye ma taxaw ci tànt bi fi ma war a taxawee ci tante bi muy ginnaaw raay juddoo fi yaroo fi màggee fi dëgg fi sax fi dafa séene fedee ci barke borom Tuuba di sant bu baax xale bii di maam Cheikh Ndaw ndax nag jëggaani ba mu xewee ba tey kenn sonnatu te nun suñu enveloppe bi dañoo diis dañoo oyof ba nga xam ne kenn talatu woo ci dara waaye bu ñëwee ba fii ñaantal fi Serigne Fallou tuddee ko sargal ginnaaw raay koo xeebal bisam yaa ko tooñ koo xeebal woppam moo tax nag léegi laa wàcc ci avion jóge Casamance defe naa ñi doon xool réseaux sociaux yëpp xam nañ ni ci suba ba léegi maa ngi bi ñëw na mais dama ne keroog bi ma tàntalee yonent bi fii moo fa jiitu indi orchestre am yëpp jàng santal ma yonent bi ba mu guddi mu doog dem programme am kon maa ngi koy ziar bu baax di nuyu manager am Omar Gueye di nuyu nag borom bayal bi bayal bu ne am na borom waaye ki ma àndalay borom bayal bi muy jibi mu alaaji Maasur Fay di sama doom bàyyam tegoon ko sama loxo te ba demee ba léegi gindiwu ci dara néew guddi bi taxul ci bi changé waxtaan yu bari taxul ci bi changé bàyyi ma ma ko dénkoon muy sama loxo lu may def rek mu ne ma yaay defe ko nii te doon na ma ni ko jógal mu ne ma demaguma dema dem bul demagum heure bii ma ne ko bàyyi ma dem rek ndax maa ngi doog a jóge ci ñooy joor te dama sonn waaye maam na la yàlla lafal cat di nga fi tàgg Serigne Touba xale mënu ko li nga fi wax Serigne Touba léegi gone mënu ko waaye nag ki nga jàppool ku mu jàppool mu def la lu deful kenn mu Cheikh Sey Oumy Mbacké mu baax mi mu Alaaji Fàllu donc maa ngi ziar ñëpp di kontaan di gërëm ñëpp ci bi jërëjëf jërëjëf kon léegi jërëjëf euh, soxna Mame Diarra Fam ah ndeysaan dafa joxe enveloppe am kooku. santor bu mag bi. kooku suñu frère la. mbokkum day xaarit Diouf Pape nee na ne dafa bëggoon ñëw nag ci bés bi ndax maam Cheikh Ndaw jaral na ko ko waaye nag dañ ko woo léegi Tamba mais bu yi weesoo rek ne dina dugal maam Cheikh studio jël ko en charge doonte commencé woon na sax waaye dana ci teg loxo nag. nee ko ñëpp dégg ko. ndeysaan. nee maam Cheikh maam Cheikh am la. nee ba pare dugal ko studio ñu defal album bi incha allah. Thank you. jàpp ba noppi damaa bëgg képp loolu de doon ko wax ñaari yoon nabi suma dam naa fata dalle fakkaana xaaba xaw sii di aw ak naa wayal dëggal loolu waaw képp kuy soppee Seydina Muhammad nga jub te heure bii way képp ku ci yàggaay képp ku ci yeggaay maa ngi koy ñaan ci barke Seydina Mouhamadou Rasulullah yàlla doo amee tànk yu ñett amiin yaa rabbi maam Cheikh ki ngay bëgg a way moom rek la yàlla jàkkaar lool ne ko ma arsalnaaka ila rahmatan lil alamin ne ko ma alamin wa ma arsalnaaka ila kaafatan li naas moom la yàlla jàkkaar lool ne ko ku la gën ci koo la gën wa innaka la laa yaa ngi bëgg way ku riis nag ku riw mi bëgg wayal la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah الله يا رسول الله لا إله إلا الله suñuy tiitar lépp loo xamante ni nii muñ gëstoo dañee seen seen seen xeet kon yàlla yàlla yàggal seen taxawaay ginnaaw loolu comme sëñ Omar waxe rek daanaka jërul ci dellu ndax sëñ As jaar na ci muy sant ñi nga xamante ne nii sëñ maam Cheikh Ndaw da leen la jox ab cër ci bis bi mu jox leen ko nag ngir seen taxawaay ci liggéeyu Serigne Touba mu def ko te Serigne Touba rek tax ñoom it ñu yëg ko ñëw jàpp ci yal na leen suñu borom fay di sant sëñ maam Cheikh rek ndax kàddu yëpp man samay kàddu ci moom laa koy jëmale xañ na ci ndigalul sëñ Seexu mi laa fi ñëwee waaye bu loolu wéyee tamit dama fay ñëw ngir sama cëru bopp ci sama diggante moom ndax àdduna moom li fi am solo mooy ab yar képp ku ko sun borom dénku jàppal ne amoo dara ab mooy lépp ndax bis dafa am benn naar bu mas a ñëw ci sëñ Fallu ne ko Mbàkke xanaa ñett yi mënta ñàkk Sëñ Fallu ne ko ñett yan mu ne ko jàng mu ne ko mën naa taxa dañu réer mu ne ko jaamu yàlla mu ne ko mën naa tax bu ëllëgee suñ borom yërëm la mu ne ko liggéey mu ne ko dundee saw ñaq ba doo soxlaal kenn waaye ba mu paree dafa am lu ko ci Sëñ Fallu tegal ne ko waaye ñett yooyu doyut naar bi ne ko lu doy mu ne ko mooy ab yar naar bi ne ko lan mooy ab yar mu ne ko mooy ak taalibe kon képp ku sun borom dimbale ba ak taalibe nekk ci rek mën ngaa jariñu àdduna ak alaaxira te jógun ngir bëgg dara ngir bëgg bis ndax nim la def rek nga koy def gis nañ ne ñun amuñu lu dul suñu waajur muy alaaji sëriñ Seexu ah, moom la ci te képp koo xamante ne nii lépp lu muy def wala lépp lu muy taxawal ñi ngi la cay gis rek ñi lay bàyyi xel bu baax xañ na am na ci yoo xamante ne nii yitte yi moo koy moo koy xaw a tënk rek waaye buñ sañoon képp koo xamante ne nii bu sëñ bi xewlee walla mu taxawal dara nga ñëw jàpp ja buñ fekk loo xewlee danga ñu gis ndax xañ na sëñ bi am na fu mu toll sëñ maam Cheikh Anta xam naa kàddu yi mi du sax waaye li tax may wax mooy ñun ñi nga xamante ne dañuy tudd di tudd sëñ Tuubaa dañuy ay gone dañ gën a xam suñ bopp te xam liñ am nañ gën a xam suñ bopp te xam liñ am bu buñ neexal kenn buñ ñoddi kenn ci suñ bopp ñun nañ nekk ci liñ war a nekk rek jàpp naa ne buñ nekkee ci liñ war a nekk sëñ Tuubaa ci jëmmi boppam moo ñuy xëccal lépp loolu nag niñ koy niñ ci soññee suñ bopp ñoo ngi leen koy soññee yéen bokk taalibe yëpp nit ki lépp lu muy def na doon dëgg ci moom tam doon lu mu gëm sëñ maam Cheikh gën la am fit ndax bu fekkee ne lii ngay def nii daanaka ñi koy def ñu leen di tudd dàquñu lool kon nit ki li muy li koy jàllale mooy gëm-gëmam rek nit ki lépp lu nekk na ko gëm te muy dëgg ci moom yal na la suñu borom gën taxaw te taxaw képp koo xamante ne ni jàpp la ci bis bii ndax lépp lu ñuy defar sëñ Tuubaa képp ku ci jàpp rek defaloo ko ka koy def sa bopp nga ko defal kon nañ gën a góorgóorlu ci liggéey sëñ Tuubaa bi te di ko sellal na wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu waaw bu baax Babacar Ndaw maa ngi sant bu baax Babacar Ndaw nga xam mooy sama taawu baay maa ngi koy sant bu baax gis naa taxawaay bi gis naa lépp maa ngi sant ñëpp ñoo xamante ni si yëkkati nañ seen alal jox ma ko maam ko mangoor ak soxna Ndeye Ndiaye ànd ak rakam ji di ndaagu di sant soxna Kine Ndiaye soxna Faa Mbaye maa ngi leen di sant bu baax Baye Galas Mbacke maa ngi lay sant bu baax di la gërëm Mbacke baa lay sant di nga ba léegi bàyyi woo maam Cheikh Anta Mbacke borom daaru sañ-sañ tamit ñu ngi lay sant bu baax suñu yaay soxna Kodou Kanji moom soxna Jaara Bousso moom Serigne Saliou danoo bëggoon rek nga fekkee heure Serigne Saliou bi moo waral ñu téye la fi ba heure bi yow lañ ko sañ a def لا إله إلا الله شيخنا صالحوني بنا فإذا لا إله إلا الله شيخنا صالحوني بنا فإذا لا Salihu Yetina Baisa Faizan Six. Thank you. noppi naay bépp xeetu fokkaale allahu yaa di jël waay yow mi jël seexina seexina seexina ay seexina seexina sëriñ Saalim yow mi jël seexina seexina Seexna Seexna Sëriñ Saaliw. bis yi tamit dina yóbbu ñu gàddu seen jaay. moom mii jël Seexna Seexna. ay Seexna Seexna Sëriñ Saaliw. app ba jot na. app ba jot na. What? لا إله إلا الله لا إله إلا الله la

sang ba kii ko a wér suba ni maa ko jublu penk ba la buur yàlla yabal malaakaam yërmaane mu ñëw di jël si room bu màgg gan xamul ko أخادم أخادم مضي بوار أسأل خمسي يكمل ومن تشتري سالي لم يولد بعد صغرى Saliou loxo ca kaw dafa tay Xaadim. waaw góor Maguette waaw góor waaw góor Maguette. wallaay ñëpp a tàmbali woon sax. Baye Xaadim kii sama rakk la ku am yar yar ku am taal bi ku am ay dama bëgg yéen ñëpp na ngeen ko ñaanal. di yàlla yàlla ci suuf sama ak Maam Sëriñ Fall. Thank you. man Bamba suma weete jooy Sëriñ Saliw woon lay jooy suma weete jooy Sëriñ Saliw woon lay jooy suma weete jooy Serigne Saliou Serigne Saliou woo oh, laay jooy Serigne Saliou Serigne Saliou mooy borom ñuul leey mooy borom jannatul maxwa Serigne Saliou mooy borom ñuul leey mooy borom jannatul maxwa man Bamba suma weete jooy Serigne Saliou Serigne Saliou oh, yooyu Saliou man baaxul suma wéeru tey yooyu Saliou sëñ Saliou laay jooy Saliou ndaanaan am talent ndax jiwriñ Omar suñu waxee rek mu ne talent la ànd ak kon nag ñee ñuy dégg ñu nekk Medina ñu naan ay njóobu afiya macha allah yal na ko yàlla yomb yaa mën fuuf kon nag ginnaaw dama bëgg ñoom ñëpp ñu porté la yéegal la ba ci kaw ngay feesal grand théâtre man man li ma def dafa ma ko yooyu loolu rek foofu rek laa teg sama bët teguma sama bët fenn furul ngay doomu ginnaaw raay du suñu fierté ñu war laa jàpp di yëkkati la ak yow ba ak yow ba Europe ba Asie ba états te loolu daan ka ñun ñu ngi noyyi rek loolu am insha allahu rabbi te sa mag Pape Diouf wax na la bari na ba mu la déggoo dana la studio bi maa koy fay te danañ ànd dem fu ne wax nañu ay bébé dem ci yow donc képp ku fi nekk ak ku toog ci kër yi di ñu déglu nañu xam ne ginnaaw si tey fépp fu maam Cheikh Ndaw mi jëm na ginnaaw raay yëpp màbb dem ànd ak moom man loolu rek laa fi toogee moo tax ma toog fii ci baas bi ma toog ci baas bi ba sax mais li tax ma toog wallahi lazim mooy nekk daf ñoo war ndax yow suñu fierté nga dinaa war a yëkkati porté la ba ca kaw a kaw a kaw war a remercier ñii kay ñoom jëwriñ Omar ak ñii fi teew ñun ñoo leen war a gërëm remercier leen mais pas ñu ñuy remercier ñun soxlawuñu fi loolu na yàlla guddal si fan rek yàlla far ñu ca ngeen baal ma ah, ngeen tàcc bu baax a baax a baax a baax dafa ndax taw li mu def yomb barke Serigne Touba Xaadimu Rasuul léegi nag moo murit yéeg tijaan yéeg xaadir yéeg laayeen yéeg ñasan yéeg ñëpp rek nañ si yomb ak njaago sëñ Fallou yi. waaw njaago sëñ Fallou yi ñëpp rek. nañ ci ñi ngi fi de gis naa leen. ndax maa maa leen ci woo ba ngeen wuyu si ma. yaakaar naa ne sama sag rek ak sama fierté rek ngeen di wër yéen sama bunóor rek ngeen bëgg na si ñëpp yëngu rek. mbay yaa doy. mbay yaa doy. ku ne sañ na ko. waaw jërëjëf jëf mu neex mu doy

uniquement mais bii foofu moo bokk si alcool maam Cheikh Ndaw Messi des Zikrullah macha allah maam Cheikh Ndaw Messi. macha allah macha allah. dorkal jërëjëf. jërëjëf gën a jërëjëf kon bu ko defee nu ñu toogaat rek.